Della Major Diouf. Donc, euh, bonjour à Preti, euh, bonjour à Anna Diouf depuis Paris, bonjour à Cocotte euh, Fofana. Donc, euh, yéen ñëpp maa ngi nuyu waay donc maa ngi ci studio euh, Safir FM Dakar Didia Santouré bonjour à Sali voilà donc waa Sali ñu ngi ñëw ah ñu ngi ñëw defar lépp léppay baax rajo bi gën a kawe foofu d'accord bonjour Ami Diop donc yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu ñëpp. thème bi tey euh, comme nu mu leen ko annoncé rek moom mooy euh, donc euh, nous sommes tous en sursis donc nous sommes tous en sursis donc dinañ dara donc dans tous les domaines non le domaine de de l'eau il y des noyades le domaine de l'électricité il y des électrocutions le domaine tous les domaines de la santé on est tous en sursis au Sénégal si loolu la ñu waxtaanee tey la candidate à la présidentielle aujourd'hui qui est dans le studio de Safer FM Dakar 96.6 donc euh, ndax émission bi dañ koy synchroniser ak Safer FM Dakar pour euh, ñi nga xam ne connecté wuñu si Facebook comme ni kon Facebook ñu mun kaa déglu ndax dafa nekk lu am solo bonjour Kéwouzabé Leila Brunard bonjour Cocotte euh, Fofana donc ma chérie comment faire pour te parrainer à Casablanca J'ai envoyé par euh, Facebook euh, la fiche de parrainage. Donc il faut télécharger, il faut l'imprimer. Après, soo ko soo ko imprimé nga signé remplir fiche bi dix personnes maximum de personnes ak nga yónnee ma ko par euh, WhatsApp 77 nekk loo xam ne am na solo est-ce que micro bi neex na. voilà donc di nuyu tamit Niambo Ndiaye Alioune Guèye. man ngi lay nuyu donc euh, ñu ngi nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp tey nag moom donc euh, ñu ngi euh, nekk di dafay live bi dans les studios Safari FM Dakar 96.6 donc on n'est pas dans mon bureau on est dans le studio des animateurs mu nekk lu solo un petit peu de musique le temps que je voilà. mission bi nag su ma koy def euh, c'est toute une équipe qui est avec moi toute une équipe je suis pas seule toute une équipe euh, qui est avec moi pour euh, affaire jaar yoon quoi ñi nga xam ne nag ñu ñuy déglu 88 628 04 14 mun nañu wootee ñu jël seen i donc seen suggestion et puis suñu waree jàll ñu jàll en direct donc loolu l'émission bi ñëpp a ko bokk voilà donc day tourner. di fàttali que a ngi déglu seen émission Mandela Show ak euh, euh, euh, Facebook live vidéo donc sur le compte Facebook live vidéo 88 628 04 14 mooy bi nga xam ne soo ko composé di nga mën a participer su fekkee yaa nekk à partir Sénégal mais soo nekkulee à partir du Sénégal pour man da ngay tout simplement en Facebook live vidéo donc option vidéo voilà donc technicien yi nga góorgóorlu leen waay góorgóorlu leen waay pour suivre euh, dafa rafet ba mu baax 88 628 04 14 moom euh, on déploie énormément de moyens pour synchroniser cette émission pour Dakar euh, li ko wax dégg ko maintenant soo leen bëggee Facebook Live vidéo, donc appel vidéo et on vous prend. Voilà, donc je vais prendre ma place et je vais laisser euh, le technicien euh, prendre sa place et on va démarrer cette émission. Okay. voilà ki mooy DJ Tino. ci kon yéen ko wax léegi loolu dafa am solo parce que bi tamit émission Mandilation tey nag madame la directrice muy waxtaanee am na solo. maanaam tey dafay tënk Sénégal jat Diop ak la ko wër maanaam tey lépp lu bëgg waxtaanee seen biir émission Mandilation mu doon émission bi nga xamante ne nii kenn ku si nekk boo koy déglu da nga jëlee njëriñ ndax émission bi dalay si kanam tuuti dinaa si ànd ak moom moom euh, ngay san borom parti Elnuya wax si bi tamit muy waaj tamit li nga xamante ni mooy lu am solo at mu nekk seen candidat ci 2019 euh, moom itam moom mu nekk si wàccaay am solo parce que itam yéen ñi nga xamante ne nii yéen ñi safoo 96 point 6 ndax rajo leader yéen itam euh, bu leen émission bi ñu ren ñu ngi koy jaar ci bi day doon 628 04 14 yéen itam ngeen dugg wax ci seen xalaat wax émission bi noonu la ko gisee ak émission bi tamit euh, naka ngeen ko gisee daal ci seen bopp ndax euh, kenn ku si nekk am nga lu la neex si biir émission bi kon yoon na ko commencé ak ngeen def 88 628 04 14. ayca kon moom itam bu paree ma daf koy dalal si biir studio Ami Juma Faye 96 point 6. ma ne ko xarit tubaab ñëwee ko waaye. 13 yi 1991 si kon voilà moom nag fu mu nekk nii waxtu bi tamit daanaka pare na yéen ñi nga xamante ne nii yéen nañ safoo 96 point 6 waxtu bi tamit seen émission Mandela Show nee naa la tey lépp lay li nga xamante ne nii dafa ñor Sénégalais yi te incha allah dina waxtaanee loolu ak day seen waxtaan bu am solo ngeen ànd seeg uh, moom uh, Ndella e ndeysaan surtout pour suñu commande de benn borom parti RNUA tey seen émission Manilation dafay à la journée ndax nee naa ne tout le temps Safir actuellement dafa nekk ay innovation yu am solo yu innovation yi nga xamante ne nii eh, kenn ku si nekk booy déglu 87 point 6 da nga siy gis sa bopp bu a baax ndax olof Ndiaye di wax ni kuy wax ko déglu mooy bokkam léegi léegi incha allah dina wéy di ak yéen seen émission Manilation waxtu bi fenn daal bu ko kenn wuute bu ko kenn wuute. ndax allah kàrkala voilà donc. Euh... voilà donc euh, di nuyuwaat ñëpp di nuyu tous ces internautes yi nga xam ne ñu ngi euh, ñu ngi seetaan si compte Ndella Madior euh, donc voilà maa ngi nuyu ñëpp tey nag. thème waxtaan bi j'ai besoin d'un petit retour là-bas thème waxtaan bi yokkale ma tuuti musique kii bi laa dama soxla benn retour bu ndaw voilà thème waxtaan bi tey voilà c'est bon dama ne nous sommes tous en sursis mu kenn ku ma wax ci suuf pourquoi nous sommes tous en sursis lan moo ma poussé ma ne nous sommes tous en sursis dafa am benn vidéo boo xam ne dama ko partagé tey mu am benn xale ndeysaan bu lab maam benn xale bu lab mi ngi euh, labee Padois defe naa ñi ma sama xarit yi may seetaan sama xarit yi may seetaan gis nañu vidéo bi jubbanti point com ma partagé ko un enfant de 8 ans qui tombe et se noie dans une fosse ouverte par la CSE loolu mi ngi amee Padoa mu nekk loo xam ne mënoon naa ñàkk on est tous en sursis ndax jël kàmb pour des travaux bàyyi ko mu ne fang kenn protégé wuñu ko xale yi di foo daanu ci kàmb bi nga xam ne ndox mu taw bi dafa ñëw feesal ko mu fees dell xale bi ndeysaan mujje faatu mujje lab labu si géej si koñ la lab si benn kàmb bi CSE doon def on moi je dirais plus jamais ça ñuy wax fële je dirais plus jamais ça parce qu'un enfant de 8 ans ses parents ont investi tellement sur cet enfant mu doon foo romb benn kàmb fakkastalu daanu ci biir kàmb gi fees dell ak ndoxu taw kàmb ji fees ak ndoxu taw xale bi lab mu nekk loo xam ne day na waar bekommen? Nous sommes tous en sursis soo leen gisee ma ne nous sommes tous en sursis que léegi Sénégal nit mun naa lab fu dul géej léegi Sénégal nit mun naa lab fu dul géej On est tous en sursis. Branchement. Branchement électrique archaïque. yi am Sénégal ma poussé tamit ma ne on est tous en sursis ah Diawar Dieye on est tous en sursis su tawee rek électrocution yi commencé su tawee électrocution yi commencé met tous en sursis. su tawee yi commencé branchement électrique yi ne fàng ñu waroon ko mënoon suul pour éviter l'électrocution dans la rue saa yu tawee on assiste à ce genre de problème loo su weesoo dans le domaine médical bépp nit fii ci Sénégal ku fi sa kër tu vingt dix neuf pour cent de chance de mourir durant l'évacuation on est tous kon dafa jot léegi dafa jot dafa jot ñu dénk Sénégal nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques ñu ànd nekk benn dafa Sénégal parce qu'on est tous en sursis xale yi lab ci ay pax fii ci Sénégal C'est pas normal. On est tous en sursis. ñii di dee par électrocution parce qu'il y a eu des négligences on est tous en sursis devait mettre dans de très bonnes conditions tous les Sénégalais, que ce soit à Dakar ou dans les 13 autres régions, ku crise cardiaque waroon nañ la mën a jël toppatoo la bu baax ku crise cardiaque courant moom dafa coupé waaye Facebook live bi mu ngi continue nekk loo xam ne loolu la ñuy dundee fii Sacré-Cœur 3 toujours courant di coupé on est tous en sursis on est tous en sursis parce que les Sénégalais ne vivent pas dans de très bonnes conditions fii ci Sénégal on est tous en sursis nappkat bi di dam di wuti jën pirogue yi di chavirer protection bi kenn renforcé wu ko certains même dañuy dem di nappi jën sans gilet de sauvetage on est tous en sursis Mouhamadou Moustapha Sall maa ngi lay nuyu on est tous en sursis et ça ça doit créer un déclic de prise de conscience un déclic de prise de conscience pour que bàyyi di naan ndogalu yàlla la on di wax ndogalu yàlla la yàlla yàlla béy sa tool dëkk yu mel ni Japon am nañu Nagasaki ak Hiroshima ñefe ba développé seeni dëkk un bon programme de développement nañu ñëfe pour développer Sénégal mun nañ ko xam naa heure bi la plupart d'entre vous ngeen di liggéey mais après di ngeen mën a seetaanaat vidéo yi kon ngeen di partager vidéo yi di yéege niveau yi ngeen di partage vidéo yi te di yéege niveau yi participer leen si programme de développement wu parti politique yi pour l'intérêt des Sénégalais bokk ci biir waxtaan bi mais connexion bi comme d'habitude mooy dem di ñëw parce que je suis toujours à Sacré-Cœur 3 on est tous en sursis tey suba envoyé naa leen fiche de parrainage yi validée par le ministère de l'intérieur ndax fiche de parrainage yi ñu jotoon def c'est totalement différent ak fiche yu ministère de la de l'intérieur distribué daanaka yéen ñëpp ñi may seetaan la plupart jot ngeen ko képp koo xam ne ànd na si sama participation ci élection présidentielle yi di ñëw mun nga ko imprimer remplir ko soo amee carte électeur bu CEDEAO parce que ku amul carte électeur bu CEDEAO c'est pas la peine da ngay dem ñafe pour am ko fiche bi nag di personne ñoo ci parrainé dix cest à ku ko imprimé ba pare ne mu des neuf autres place li ñu ñaan mooy nga convaincre neuf autres personnes après nga yónnee ñu ko foo ñu koy yónnee dañu koy yónnee par WhatsApp 77 612 39 69 parce que peut pas être partout d'ailleurs set régions la ñu sas sept région région bu nekk 2000 minimum 2000 minimum 2000 kon ñi ma doon abordé di wax xamuñu naka la ñuy def pour parrainer jox naa leen léegi fiche de parrainage yi ndax jàlle naa ko fépp muy WhatsApp ku nekkul sama liste de contact WhatsApp nekkuloo sama liste contact euh, Telegram. yaa ngi au moins mun nga connecté wu même su fekkee on ne pas ami mun nga connecté wu si Ndella Madior Diouf compte yi nag bëri nañu man j'ai plus de dix comptes pratiquement yëpp am na ay beaucoup des milliers d'amis su ko defee je mets toujours ma photo si profil yi je mets toujours ma photo et c'est pratiquement la les mêmes photos qu'on retrouve partout parce que conti yi il plus de su dépassé 5000 dootoo mën a accepté ji et les comptes sont différents des pages di leen di demander ngeen di aimer page euh, Ndella Madior Diouf Jules connexion baa ngi dem di ñëw rek dama xeeboon modem bi moo tax ma buggoon nga charge si sam si beneen modem bi lilaas noonu bañ daal mais on va faire avec ndax c'est très difficile de travailler avec euh, l'internet de Sacré-Cœur 3 kon bañ ba dee ak tous mes amis qui n'ont pas encore parrainé soo leen bëggee ma bokk ci élection présidentielle yi di ñëw fiche parrainage yaa ngoog defe naa tas naa ko partout fiche parrainage yaa ngoog imprimer leen ko ngeen remplir ko am na solo donc je reviens sur euh, thème mu waxtaan bi Astou Sarr ñu lay euh, dalal ak jàmm thème mu waxtaan bi tey di. Euh, tous les Sénégalais sont en sursis tey ku fi feebar soo amulee xaalis da ngay faatu parce que à dañ lay laaj le ticket de consultation d'abord on est tous en sursis tous en sursis di jégalu tuuti nag si connexion bi nga xam ne dafa am euh, jafe-jafe mi ngi dem di ñëw ndeysaan mi ngi dem di ñëw érangement Pathé Diouf ñu ngi lay dalal jàmm si live bi di leen di fàttali tamit que live bi ñu ngi ko synchronisé ak 96.6 euh, FM mu nekk léegi live couplé à Mandela Show Mandela Show pour ñu ko xamul mooy sama waxtaan quotidien waxtaan politique ci actualité sénégalaise bu may def depuis 2011 fii ci Dakar Sacré-Cœur 3 Safir FM ñu ci waxtaan di ci soccante xalaat kon Facebook live vidéo tey ñu ngi ci 57 54e numéro ñu ngi ko tàmbalee le 8 juin couplé ko nag Mariam wan lii maa ngi lay nuyu bu baax sama xarit bu baax sama yaay bu baax waaye première femme chef de parti du Sénégal promettoon naa la woo mais dinaa la dinaa la su ma paree rek live bi dinaa la woo ndax ñun femme politiques yi on doit donner le bon exemple dañ war a di lëkkaloo nekk benn pour faire respecter les femmes politiques sénégalaises c'est seulement l'unité qui fait la force suñu booloo rek yépp ay sotti suñu boolee moom yépp ay sotti kon même le menuisier métallique buy liggéey ak matériel sans prendre des précautions est en sursis ndax bëtam yëpp a yàqu on est tous en sursis dans tous les domaines domaine boo tudd domaine boo tudd Sénégal la pêche l'agriculture tous les domaines dañ ko war a parfaire on est en sursis malade bi nga xam ne dañ ko hospitaliser et même en sursis ndax mun na fa jële beneen feebar bu bokkee bi ko indi moom la ñuy wax maladie nosocomiale Mezzo Sall mi ngi may laaj climat politique dans la diaspora loolu dama ngay defal benn émission spéciale ndax diaspora bi moom suñu programme bi ñuy am pour diaspora bi dafa riche ni di jóob dalal ak jàmm fii si Sénégal domaine boo laaj domaine boo laal mun nañ ko gën a parfaire bi ñu jëlee suñu indépendance c'est c'est en 1960 on est en 2018 war nañoo mën a gën a góorgóorlu gën a gën a góorgóorlu góorgóorlu pour defar suñu réew pour defar suñu réew. il faut que ñu nangu jël compétence féminine yi ak masculine yi teg leen ci kaw ndax ñoom ñoo mën a defar réew suñu bëggee defar suñu réew foog ñu nangu liggéey ak des professionnels teg leen sa kaw les non professionnels nekk ci ginnaaw mais mënuñu nekk ci benn réew boo xam ne dañuy jël ñi nga xam ne c'est pas des professionnels teg leen ci kaw ignorer les compétences féminines moi ça fait moi bokk na si lu ma révolté au Sénégal au Sénégal on ignore les compétences féminines Maria Seck maa ngi lay nuyu di nuyu Soxna Khady canta Diagne ne di Diop yéen ñëpp maa ngi leen di dalal ak jàmm di leen di nuyu Sénégal ñu ñoo ko moom Sénégal ñu ñoo ko moom suñu buggee mu jëm kanam foog ñu nangu liggéey Badara si liggéey maa leen di nuyu yéen ñëpp Sénégal ñoo ko moom On est en tous sans sursis au Sénégal, tous. nekk Sénégal am ay appareil radiothérapie ñu ne ñaata la ñu ne benn wala ñaar léeg-léeg mu paan ñi nga xam ne dañu am problème mu cancer di souffrir on est tous sans souci Ramatoulaye Faye ñu ngi lay ak jàmm Sénégal dañ ko war a defar dañ ko war a defar bu baax merci Julie Ba nee na partage leen vidéo yi ma teg si yéega leen niveau yi na niveau yéeg na niveau de discussion yéeg parce que dafa war a nekk benn forum benn panel de discussion pour développer le Sénégal na niveau de discussion yéeg on doit échanger ak neex a defar Sénégal ak neex a defar un pays bi nga xam ne océan Atlantique bi moo nekk ci côte ouest bi yépp beneen frontière est bi ñu am lan fleuve Sénégal mu jóge fan Fouta Djallon fële sa Guinée Conakry ñu naan déet mu am ay lagune ak ay lakk malheureusement ñi ñu jiitee tey xamuñu taluñu sa lagune taluñu lakk taluñu ko et c'est des sources de développement et de création d'emploi nañu dundal lagune yi ak lakku Sénégal yi di law mais daf la pisciculture pisciculture bi di ko développer ni nañu dundalaat les lagunes et les lacs ngeen gis jawat jey nee na ma l'enfant s'est noyé au pont de l'émergence Patte-d'Oie la noyé xam nga gars yi dañuy tàmm di gas dañuy tàmm di gas suñuy gasee bàyyi noonu alors que dañ ko war a sécuriser su ko defee benn xale bañ see daanu une grande perte di si profité di jaale si waa waajuram yi c'est une grande perte on est tous en sursis Yawat Dieye Patte d'Oie la CSE moo doon dafay travaux gas kàmb bu yaatu bàyyi ko xale bi certainement dafa romb toujours est-il qu'il s'est retrouvé à l'intérieur ba lab partagé naa vidéo bi mu ngi sama compte Facebook Et c'est un exemple parmi d'autres. Hein. C'est un exemple parmi d'autres. feebar da nga war a dem hôpital feju mais dangay ngay dem hôpital gën faa feebar attraper fa benn maladie nosocomiale wërgu yaram santé sénégalaise moom lañu waru foowee ak clientèle politique da ngay gis à l'accueil actuellement ñam am xam-xam ñépp war a feeñ ñu weccante xalaat pour defar suñu réew noonu la war a demee noonu la war a deme su ko defee temps bi nga xam ne dañ koo perte dañ ko perdre on a perdu tellement de temps pour développer ci Sénégal yàlla léegi baaxee ñu ay ressources minière yu baax a baax a baax kon waruñu sàggane suñu suñuy suñu bopp waruñu sàggane suñuy ressources minières parce que xale yi di ñëw ak yi juddoogul dañ si bokk on mu war créer benn déclic de prise de conscience affaire bi du falu par force affaire bi du fallu par force Sénégal ñu ñëpp ko bokk ñu ngi egg ci benn moment extrêmement critique boo xam ne lépp lañu war a rafetal pour phase de transition bi mun a sedd transition bi dafa war a sedd su ko defee ancienne génération d'hommes politique ancienne génération d'hommes politiques yi naturellement seront remplacés par la nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques et dans une générosité non rek la war a demee il doit pas y avoir de forcing c'est pourquoi quand j'entends dire que le président Macky Sall dès le premier tour daf may jàppiree mais c'est des slogans de campagne ku si nekk mun naa bàkku on est tous en sursis kenn mënul dem see élection yoo xam ne carte électeur yi yëpp ne sont pas à la disposition des ayants droit on est en sursis parce que waruñu valider élection boo xam ne moitié bi ñooy participer beneen moitié bi du ñu participer loolu fokkati lay ñuru c'est comme les législatives bi passé Touba bokk si dañuy supprimer Touba donc ñi nekk tey assemblée nationale lu ñuy dogal kan lañuy ñuy représenter une partie des populations on est en sursis parce que c'est pas une volonté populaire c'est pas une volonté populaire su ko defee ñi fa nekk dañuy jël des décisions pour une majorité silencieuse non représentée à l'Assemblée nationale on est en sursis après le pays sera à l'image de ceux qui nous gouvernent moo waral ñu ne dëkk bi dafa métti moo waral ñu naan dëkk bi dafa métti le pays est à l'image de ceux qui nous gouvernent moo waral ñu naan dëkk bi dafa métti kon du ma def lu dul euh, essayer de prendre parce que maa ngi def émission bi ak benn appareil bu bees donc euh, c'est pas tellement évident de prendre de prendre les appels vidéo donc jawar Dieye maa ngi lay euh, jéem a jël mais affaire bi jàllagul bu baax voilà je comprends maintenant ok c'est comme ça c'est comme ça Didiassane également maa ngi lay jéem a jël parce que waxtaan balaa muy neex dañuy échanger on est tous en sursis kon daanaka lii laa leen indiloon tey émission bi duma ko guddal ndax euh, gis naa ne connexion bi day dem di ñëw que dafay demain ñu jéem a problème wu connexion yi pour mën a échanger ak yéen correctement ndax connexion bi day dem di ñëw xanaa du ñu def lu dul euh, delloo kàddu bi euh, Tino xaw ma ndax tinoo xaw ma ndax tinoo euh, comprendre na li may wax da ne da ngeen yéega niveau yi de. waaw waaw. voilà. benn waxtu. incha allah dinañ yëg lépp si kàddu ñu daal lépp si saabam faawaan ndax bëgg nañ lépp li nga xamante ni dañ koy déglu si bànneex FM bi wala dafay am si Facebook lépp rek di koy am si gàttal rek am ko am li nga xamante ni dalay ñàkk a def solo benn voilà voilà donc euh, kon émission bi dama koy gàttal tey ndax dañuy am ay euh, problème mu connexion day dem di ñëw et puis également il y a une équipe euh, de journalistes qui sont là pour m'interviewer donc euh, ñu gàttal ko tuuti après suba on changer de modem pour mën a liggéey correctement voilà donc euh, maa ngi leen doon gërëm di leen di sant di leen di gërëm di leen di sant am naa si euh, am na aspect yu bëri yu ma bëggoon wax tey waaw dese naa ay aspect yu bëri yu ma bëgg a wax tey mais je préfère régler le problème donc le problème de connexion internet yi ngeen di dugg mais je suis obligée d'interrompre l'émission ba suba su ko defee connexion bi gën a stable ñu gën a waxtaan waxtaan bu gën a yàbbu yaatu donc la deuxième partie ce sera demain demain matin demain matin à 11h donc demain matin à 11h ñu continuer waxtaan bi dina fekk ñu régler euh, problème